ak dug takkaat dug nag des na su menten nan mii waaw na nuy cuujoo sunu maam Seera ma Faal lamb di ko dund maam Bamba maam Seera Faal waaw waaw te nuy cuujoo maam yàlla ndax kat sëñ Tuubaa maam Seera Faal ñoo fi ne ñoo fi des desu fi waxuñu ay waxu ñu sonal ak ay détails xam ne lu nu wax fiis moo teewaat nii de fii say wax ak yéen xëndal la gën a dee teg tañale bi na ñëpp dëggu te romb dëggal day wax dëgg civilisé saflisé xàmmee ràññee bëgg ñëpp jàppee ñëpp ñu sa bopp di jëggal ñëpp di jéggalu ñëpp lu jéggalu borom lépp ak ñëpp ak fépp na rang jub nañ leen wax dama ne leen rang yi day jub xocc xocc xocc barkeb maam Cheikh Ibrahima Fall nee naa leen fii Serigne Touba maam Serap Fall ñoo fi nekk maam yàlla point na rang yi jub fils à papa mooy wax ak yéen ki romb buur bi ay bi star ay yooyu yëpp ñu doon romb yëpp lu gaa yi wax dëggañ ko. milliardaires yeeg star yeeg nitu àdduna yi ñëpp dëxëñ nañ leen maam Bamba maam Serapal maam yàlla point bi maam na ñu dund ku dul maam waxuñu nag na raa ngi jóg